sant sunu ñaari jur bu wér gërëm sunu wasila waaye gërëm leen yéen ñi nga xamante ni saa su ne yéen a ngi fësal seen cofeel jëmale ko ci ñun doore ko ci maladie tëdd ci hôpitaux yeeg ñuy waale seen i jàngoro ñu ñaanal leen yàlla fëgg seen bopp ñi caabi féete ginnaaw yàlla génne leen waaye way dawlu yi ñu ñaanal leen yàlla atte leen ci yërmandeem jéggal leen seeni i bakkaar kilifa diine fu ci waay mën a nekk ñu ngi leen nuyu di la ziar di la ñaanal jàmm di la ñaanal gudd fan gu ànd ak wér nga yàgg jiite njaboot gi waaye kilifa aada itam naka noonu ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar ñoom tamit euh, jàmm yal na yàlla defal leen ko yàlla sottal projet yi euh, ñun ñëpp ñu mën cee jariñoo ñun askanu Sénégal ñoo ñu sax ci laay dese di nuyu képp koo xamante ni yaa ngi fi yeewoo di la ñaanal jàmm sutura xéewal waaye ñaanal ko itam ñi nga xamante ni ñu ngi ñuy déglu via 88 point 4 te seen i déplacement may leen ñuy jàkkaarloog télévision kon ñoom ñëpp itam ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ñaanal jàmm jàmm joojee itam ñu ñaanal ko ñi nga xamante ni tàmm na ñu génn moo xam réew Afrique la ñu nekk wala réew nit ku weex nañu yëg ne rek gannaaw bañ leen nuyoo ngeen gi nuyoo di asalaamaaleykum ci biir seen ngeen gi télé di la 2STV ñu ngi leen di ñaanal yal na yàlla sàmm leen ci réew yi ñu nekk la leen tax a génn rek ci teef bañ cee am waaye ànd ak lu mën a xew itam yal yàlla sàmm leen ba ñu dellu siwaat gisewaat ak seen njaboot ndax yaakaar naa ni loolu moo leen gënal lépp altine bi ñu dellu siwaat fas yéene àndaat ak yéen ni ñu koy defee saa su ne fas yéene waxtaane rek euh, lépp loo xamante ni dafay delluwaat ci biir kër gi am ci lenn yoo xamante ne ay jafe-jafe la waaye xam ngeen ne altine ni muy gàttee 20 minutes wala 25 minutes yi ñu ciy am dafay tax ba maak sama jarbaat dañ koy pelloo ànd ko ak yéen ñiy jaare ci 88 628 14 13 wala numéro international bi bu ñu demee ba xaajal nag incha allahu taala ñu dalal sunu gan gi yëngu ci wàllu ñaan nga xamante ni mooy solution mooy faj aajoy gaay yi ginnaaw déggoo goo xamante déggoo dénkoon na ko mu ñaan euh, mu may ko ko koo koy bàyyi njaay borom solution dinañ ñëw ak moom léegi ci émission bi incha allah waaye yeggaguñu foofu sama jarbaat tey xëye noir blanc départ suba ba ngoon jot <laughs> Mpañ mën ngay saboo ëpp na ëpp na ëpp na décembre kenn du ko doxalee nii nag. waaw xam nga nag mbirum décembre moom bu ñu si duggee rek day daal di métti. te seen âge la yéen. ay fi mu ne nii moom ñoo ñoo xewle. yéen xewle waaw ñun dañ ne siiw ñu ne tey la décembre ba ñun suñuy fête bari ba nu mën a tëdd tàlli. c'est que man après da ma wax yéen seen jamono ni ngeen daan préparé fête bi. yéen ak ah, ñoom mais drame parce que bi ma ko laajtee mu ngi naa foo daan romb karaw yi di xeeñ ma ne ko mais kon yéen nan ngeen ko doon dundee mu ne ma da ngeen di ñu ko daal défrisé a ci ko woon a ah, loolu tamit a ci ndeysaan daal di lakk na <laughs> ah. moo tax seen bopp yi watu nii de waaw bu yow jërëjëf yii ngeen ko duppee nduraam ngeen fay fekk <laughs> ñun ñii ba léegi ñu am karaw. waaw donc foofu yàlla. parce que ñun peigne défrisé da daan génne karaw. karité gi di ko defar léegi nag yéen ñu ngi dem yoo xamante ni yéen ñëpp a leel. kay tamit tam xeeñ na de. ah loolu du ki dara waa ji daan na ko dékku <laughs> non yërëmoon naa sama papa yi ndeysaan o oh, xetu kayite rek est wax nga est-ce que xam nga ni wax nga émission bu neex ñu comparé démb ak tey 31 décembre non ah, <laughs> foog ñu jël ci semaine bi benn jour waaw <laughs> boo xamante ni niñ ko daan kiiwee ak meesu lakk yeeg yooyu wala mees liisal waaw lukat yéen daan lukat lu dañ daan jël feer bi teg. jël morsa teg jël amuñu woon mees bu liis. ndeysaan xam nga daal di jël fer bi daal di passé mees bi. ba mu taal li ba daa woon lakk. ah kay léeg mu lakk. <laughs> wow ko léegi nag sunu kii yee pare nag daal di jël sunu ndox mu tàng. Mhm. daal di def diwlin. Mhm. Ah! Mm-hmm. ak duñ ni mu sëccee waaw def diwlin ji ci ndox mu tàng bi pour liisal cat yi mu xaw a kii ndeysaan ak niñ daan jëlee seize teg ko di takk àdduna mën a dox ñu ñuy ñëw def ay cheveux def felfelaane yii dañ ko daan takk ñun dañ daan fay suba ba ngoon jot di fas eh. mees ci siis <laughs> ak wëñ musalax nii ak wëñ suñu paree nag daa dem ca machine ba non kon démb neexoon na non loolu foog mu ñëwaat <laughs> xam nga yaar nga ci xam baa ma la siy jox ngay wax parce que xam nga yaa ngi may yee dama doon nelaw sax non xam nga maa sa confirmé man maa lay fecc <laughs> boo retaane ba sonn mu nuyoo. non dem moo neex demal demal nuyoo jarbaat. maa ngi lay ziar baax bàyyi bañ. tubaarkàlla macha allah nii laa la ah, di gisee sa orange sa orange. vert waaw moo fa jaar rek. ci sama kër mhm. yii la defaat dinaa joxe numéro bi. léegi moo fa jaarati. macha allah ayca nga def daam ma def jeune ah gis nga man maay nee naa leen man maay xaytu mairie ma toogandoo ak mairie ñu waxtaan ñu pelloo. <laughs> su ko mi suuf comme ni ma koy defee saa su nekk di nuyu képp ku ñuy seetaan sur la 2STV di ko njëkkee sama yaay ji di nuyu Sukkee Bamar mi si Betoa bi si Kaver yaay awa sama rakki xol di ñaanal sama baay bi suufu kër Matar Gueye gëmu tëdd yàlla nooyof tooy ci kawam di ñaanal suñu woy dawlu yëpp tey nag la altine suñu premier numéro de la semaine comme ni ñu koy defee ci émission kër gi ñu fas yéene wax teg ku nekk jël sa lay jañ waaye xam ngeen ne ñu ngi ci 23 décembre xam ngeen ne 23 décembre moom bu ñu ko xëy xëli day dem ci 24 décembre fi mu toll nii xale yaa ngi wàcc ñëpp mhm. takk nañ da ngeen a gaaw a ëppal de non faa ngeen ma ñu naan nag. ah waa baax na décembre août rek xolu nday yëpp jeex tàkk. <laughs> luy jeexal seen xol. ah mi ngi waaj a wasin <laughs> ndax yemu leen. yéen pourquoi yéen bu ngeen ne bàyyi la ñu xàppi da ngeen wax waxi wasin. ah kay. ci la ñu tojee dëkk bi di. non toju ñu dëkk bi dem ni blanche wala ay intimité yooyu tam faaw ngeen bàyyi ñu profité si aussi comme ni ngeen ñu bàyyi ñu génne intimité ah ay pisin party yi bàyyi leen xale yi tamit nag bàyyi leen ñu ñu dund soxla nañ tuuti dund de <laughs> waaw femme moo jaar fii mer <laughs> naa trop. ngeen am ko ci 77 841 39 96. 77 841 39 96. moo jaar ci abima bi moom ak góoram Codé. Mm-hmm. Codé loo ma koy nuyu bu baax a baax di ko ziar macha allah euh, ni ma leen ko waxee rek yu am solo yi robe yu baax yi grande dame yi ku ci bëgg rek. Mm-hmm. woo ko ci numéro boobu di 77 841 39 96. xoolu ndey yëpp jeex nañu. Mm-hmm. sunu fit yëpp dem nañu. ndax 31 euh, décembre. dama leen lu ngeen tiit. ñoo yeey da ngeen a neex a nax ah jigéen dafa neex a nax waaw jigéen dafa neex a yeey noppam waaw te nag am na ci loo xamante ni yëg-yëgu yaram la waa boo ko tolloo dootoo mën a freiné sa bopp yàlla boo ko séq ak saay-saay boo xamante ni amul lu muy seet waaw kooku rek a jara jara àndal d'accord léegi yéen yimpañ ban maire nga fi gis actuellement yéen maire yi may seetaan àdduna wërngal këpp ban maire nga fi gis 31 décembre wala 24 musul 31 yéen a ngi doon def ay peñe mu di def ay peese mees ak yooyu. waaye ñun ñun di dem pàkk mees di jënd mees foofu. ñun ba ñuy 31 ñun ba ñuy 31. waaw nee naa la euh, kii lañ doon def. matinée disco. nuy matinée disco. Euh, matinée disco. 6 heures lay commencé jeex 8 heures. ñoom maire kii taxaw sa buntu ba yéen. wala non du ay maire Momar mooy taxaw ci wet gi. waaw grand frère. Momar sama grand frère. waaw moom mooy taxaw ci wet gi. ku jege mu ne eh. Mhm. sama yaay ne heure bi jot na. su ma ko lii ñun commencé gu ñëw ne eh, sama yaay nee na heure bi jot na. waaw dafa joxoon heure booy la ak sa mag. wala mu nekk loo xamante ni ñoom ñoo koy organiser mais dem baali firi mhm. ubbi nii dem duggi soirée moom mbaye moom yàlla dogal na mosu koo def parce que yaayam dafa nekkoon koo xamante ni macha allah waaye nag récci wuñ ko dara jeng saala ndax jàmm rek la ñu bëggaloon sa morom yeneen maire sama morom yeneen maire yi waaw yow maire yëpp nga fi toogal sa yeneen moroomu maire yi ndax nañ baali waaw léegi mais ñun fañ daan yem du ngeen fa yem. ma ne fu ngeen yem fa la ñu yem jamono moo dox yéen bu njëkkoon da ngeen doon def kolo dara baas koñ bi nii baas ñëw mais ngeen cotiser bu ko defee maire ku nekk gàdd sa doom ñëw bu ñu fay lamp déedéet fay nañ lamp ya taal leen taal leen <laughs> xam nga man xam naa seen ay affaire bàyyi la ñu dañu dem boîte si du see toog xam nga jël cons buñ kenn yàqal loolu affaire à suivre la mbokk yi tey jii ñu ngi jëm ci li nga xamante ni moom mooy euh, miraas incha allahu taala semaine prochaine moom dañuy jël yëpp rek euh, teg ko mhm. fas yéene waxtaanee lu jëm ci wàllu fàttaliku wàllu rétro mhm. li fi jaar ci biir euh, année bi yëpp euh, mm. incha allahu taala mm. yàlla nañ ci bakken yóbbu ndax ah. wax mu yegg sax yàlla la neex euh, te it nag euh, jaar nañ ci yoo xamante ni ci biir émission yi mm-hmm. macha allah jaar nañu def ci tuuti fàttaliku mm-hmm. comme ni ko programme bi defee mu changé mm-hmm. ñu ngi ñaan ci kàttanu yàlla rek décembre bu ñu romb ba ba ñu dëgmal yàlla na ko dàq yàlla may ñu ñu fekke ko ay at yu bare bare bari te rafetu fekkin waaye nag tey nag moom dinañ fas yéene incha allahu taala jël ci li nga xamante ni moom mooy miraas ci lenn ci temps bi ñu am rek fas yéene ko waxtaane ak yenn ci élément euh, askan wi ni ñu ko gisee léegi jafe-jafe yi nga xamante ni moom moom lañ ciy jànkonteel danañ ci ànd itam ak ay invité yoo xamante ne danañ waxtaan ak ñoom mhm. imaam Alioune Mbaye itam incha allahu taala dana ci ñëw mhm. yooyu yëpp nekk ay xeet yoo xamante ne xeetu defaraat la ci biir kër gi mhm. ndax euh, lu ñu mun euh, li nga xamante ne moom la Oustaz Alioune Sall di wax li nga xamante ni kenn ko liggéey mhm. te doy ko bu ko fukk dee seddoo mhm. war nañu xam ni kenn ku ci nekk mënoo ca am lu la doy loolu nag la ñuy ñàkk soor ba mhm. léeg-léeg ñu indi jafe-jafe yoo xamante ni ci diggante nit ak kum bokkal ndey baay ci diggante nit ak kum bokkal baay ci diggante nit ak koo xamante ne sax nday la ñu bokk waaye fàtte nañu lépp bay dem ci wàllu yoon ndax li ko waral du dara lu dul alalu àdduna jarbaat laa yaakaar naa ni foofu jar na taxaw waaw dañ ciy taxaw sax parce que comme niñ koy faral di waxee mirance moom dafa doon thème boo xamante ni saa yu tàq mhm. saa yoo ko yëkkatee xolli ay góomu nit yoo xamante ne ni mhm. ñu ngi nekk si mbedd bi mhm. amuñu fu ñu tëdd amuñu lu ñu lekk am lu ñu ñu naan te seen i jur bàyyi ay milliards yoo xamante ne nit a si tëdd dëgg la gis nga Miran Simpaañ dafa nekk thème bu sensible ndax ba lislaam ne góor ñaar jigéen benn hmm. jigéen ñi bi ñu ñëwee dañ ne déedéet comme tribunal boo demee benn benn la nañ dem tribunal te tribunal xamul doom ju juddoo ci yoon ak ju juddoo ci yoon de léegi nag bu ko defee bu ñu defee benn benn rek bu ñu demee ku nekk di jël sa wàll hmm. moo tax boo demee tribunal la fa nekk si ay gi déedéet léegi nag bu ñu demee moo xamante ne noonu noonu la ñuy dundee hmm. nga xam ne da ngay gis mag mu jël alal ji yëpp ne ko da niix ay rakkam toog wala mag moo xamante ne dafay jël kër ga tabax ko def R plus 4 loué lépp war ko séddoog ay rakkam waaw mu ne nañ def bokk bu ñu bokkee nangam ak nangam ak nangam ay rakkam am ci moom confiance bàyyee ko lépp mhm. mu jël alal ja tëdd ca te duñ ci mënal dara ko xam nga benn si ndaw mos na fi dugg benn jour ne ñun suñu mag dem nañ ba yóbbu ko police mais teew dafa tabax kër ga ma sama yaay mu xaaja lañ ci saal bi nekk fee ci yéeg sa kaw moo jabaram mais miraas li ci gën a doy waar sax léeg-léeg mhm. rakku papa moom la ñuy def kilifa waaw rakku papa moom la ñuy def kilo fan ne ko yaa yor sunu lépp sunu baay yoo leen doon waxtaanal baay ba dee mhm. xale yu toog di xaar miraas mhm. mën nañ dund vingt ans yoo xamante ni duñ gis miraas dégg nga waaw wala duñu xam alal ji fu mu nekk déedéet yàlla boo bàyyi ay doomi ndaw xam boo bàyyi ay doomi mag sax nañ la toñ toñ ak yooyu mais bu fekkee da nga bàyyi ay doomi ndaw ñoo xamante ne mënaguñu lijjantil dara seen bopp boobaa nag menace ba day nax saay dëgg la parce que bu dee magum jëm mën na dem si papa ji ne ko eh papa nangam ak nangam sama papa dañ koy menace mm-hmm. mais bu fekkee ne ay xale yoo xamante ne xamaguñu dara si buntu àdduna mm-hmm. kër ga nekkoon ay jékki ndaw yi rek nekk fa mm-hmm. yàlla bu paa bi am ku mu noboon si jékki ndaw yi koo ko bañ kooku lay gën a coince donte moo fa gën a jaboot c'est ça léegi nag mu nekk ay problème yoo xamante ne nii ñi nga xam ne seen i yu góor wala yu jigéen dem nañu bàyyi leen fi ñu nekk si ay problème yooyu di ko dund ndax comme ni nga ko waxee léegi lu kenn moom doy ko bu ko mbooloo di séddoo du mbooloo di séddoo du doy doy léegi nag ñàkk doy boobu muy ñàkk doy mooy waral tax tojante bopp yi mooy waral tax naawtal li ñu doon waxtaane keroog mooy waral tax na fi jógee mooy waral tax bu mu ko tuddati xam nga ñun yàgg nañ dégg ne mbirum suuf kenn du ko tudd du ko dee loolu moom yàgg nañ ko dégg waaw suuf kenn du ko xëccoo kuy xëccoo yow suuf waaw léegi lu tax te suuf gi di sa suufu bàyyi wala sa suufu yaay am na ci koo xamante ne armé wu na koo dents ba doo ci wax mu jaral ko lu ne na dem bu ma des ak sama borom bu yomal xiyaamee ñu daja lijjanti ko lu ma ci am jël. xanaa am du fekki ka ka liggéeyoon ba ba ko fi. déggoo li ma la wax. waaw dama koy def li ma koy def mu jiitu ji bu yomal xiyaamee ma fekk ko fa lu ma fa am jël. allahu akbar man ma des ak sama borom. ay day am naa ko effacé ba pare des ak sama borom. Ah. bii dund bu gàtt dundatuñ fi cent ans ngay effacé te suñu borom bi rëdd nga ne yow da ngay effacé. boo moytuwul léegi ñu effacé la. ay nañu xalaat ñetti fanu bàmmeel lu jar a xalaat la 88 628 14 13. mooy mhm. numéro yi nga xamante ni moom la ñuy àndee ak yéen. Mhm. ci biir seen émission fas yéene waxtaane lu jëm ci wàllu miras. Mhm. ak jafe-jafe yi nga xamante ni ñu ngi ko ciy jànkonteel. Euh, jërëm yéeg baayo yi ñu ngi ci biir kër yi euh, mu metti lool. ñuy dund jafe-jafe lool. léeg nga gis koo xamante ni euh, dañuy jël kër baayam ne duñ ko miras. dañ koy luyee ko koy luyee kan la mooy taaw ba ko koy luye kan la. mooy rakki baay ba mooy récupérer xaalis ba. am na ci koo xamante ni ba ko baay biy jël. booba lu ndaw la ay gone yi ndaw la fi bàyyi yoo xamante ni dix ans jëm dix-huit ans mhm. a mënal waaye am na ku tëdd seen alalu baay yaay jey toñ toñ yi di wuti ji loo xamante ni moom lay dundalee mhm. ba pare di lekk àqu jàmbur loolu lu jara seetaat la mhm. nañ ci bàyyi xel miraas doy na waar am na ñu koy defal seen bopp am na ñu koy def lu ña koy def itam am ci part de responsabilité yaakaar naa ni yooyu yëpp ci xeetu tënk lay doon te xam ne bu ñu ñëwee ba suba dina gën a yaatu dañuy xaar góor gu dee ñu ñëw dañ lay menacer. léegi pourcentage la ñuy laaj. te léegi ah d'accord yow alali koy liggéey ba yow nga tëdd di nelaw mu dee ñuy menace nga laaj pourcentage. pourcentage lañ koy laaj xam nga loolu Imam Aliou Mbaye dina si ñëw parce que ana menace kat ak pourcentage. ah là de nangam pour cent la de. ay waay nangam pour cent la ñuy am ci alal yi. am na ñoo xamante ne nag yàlla kese moo tax ñuy def. Mhm. kaay miraasal ma góor gi dafa génn àddina. kooku loo ko ci may lew na ko doom parce que may la. Mhm. mais pourcentage dafa am léegi. ci miraas. Mhm. waa d'accord léegi ñoom buñ ko pàccee pàccee noonu. Mhm. wala suñu borom ne lii kat man maa la ko joxoon. Mhm. yow nekkatoo fi. Mhm. léegi yow jóge naa fi lii la lislaam santaane defee leen ko noonu. dëgg la yow nga ñëw dëgër fit. Eh, eh, eh, rëyib sikkim. <laughs> akub fi wax rëyib sikkim. ah ñuy menace duñu am sikkim. xamadi nga de. ñaa ñuy menace <laughs> am ñu am nañu amul sikkim. ñuy menace ñëpp am sikkim. <laughs> kon ay ca la ñooy samay maam rëyib sikkim akub garaam bu ñëw. alalu jàmb nga si laaj pourcentage yooyu itam da yàgg na ñeme yàlla jëpp boole ko socci ndeysaan sama góor ga Baye Mbaax Mbaye maa ngi koy ñaanal yàlla na xippee aljana amiin euh, ba ma ko waxee ko moom euh, Baye Mbaax miraas ana miraas ak wut soccu yor ak du ma tàmbalee gum wax mu xamal ma carrément ne ma kon yow daa mel da ngaa ñëwoon sunu miraas ma mu ne ko seen miraas ma lu ci xewoon mu ne ma duma la ko wax léeg-léeg góor gi jàll ba ci ginnaaw rek génn benn biteel rek daal di gàllax ndiku <laughs> daal di tuur daal di ñëwaat yor socc bi toog yooyu yëpp nekk ci ci séddale. waaw calcul. yow seen alalu jàmm ngay seddale loo si galax ni ko. Euh, dinaa fi indi Mbacke Fall sama doom bu baax a baax incha allah moom. ku maîtriser loolu la miraas. te xale la mu mel ni que xam-xam yooyu dafa nekk loo xamante ni ni nga ko waxee du sikkim ba kol ga. déedéet du weexaayu bi jaaw ba lañ cey mm. taamu. déedéet mais maandute ak ragal sunu borom. ba pare jàng ko itam moom mooy li nga xamante ni. moom moom lañ ciy toppee. surtout parce que jotul yooyu toog sax nga gis léeg-léeg ñooñu miraaskat yi day am kuñ ci ki si tippoo nag dañuy bëgg kooku mooy ëppale si menace miraas jotuñu simmi ba tàmbalee leeral waaw moom moom laa la wax ah, xam nga veuve buñ ko fi bàyyee mhm. comme olof jëtuur la koy wax waaw léegi ki fi waa ji bàyyi mu nekkoon jabaram tënj ba simmi jëtun léegi jëtuur du la jëtun mooy kii tënj waaw boo tënjee ba summi moom nekkatoo jëtun femme nga waaw d'accord veuve nga sa jëkkër gaañu na waaw léegi nag veuve nga xamante ne ñoom so kii nañ ba pare léegi nag ménage kat itam dafa am ñu siy bëgg léegi ñi siy bëgg itam dañuy bëgg defaleen leen benn bekket fagu benn. Bekkeer Fagu. léegi Bekkeer Fagu. Bekkeer Fagu maman Khady Mbaye di wax maman Khady Mbaye tëngeej maa ngi lay nuyu. <laughs> Joodo Baye <laughs> Joodo Baye sama sœur sama xarit maa ngi koy nuyu bu baax a baax uh-huh. macha allah di nuyu waa Tëngéej yëpp uh-huh. mu nekk lu doy waar loo xamante ni daal nit ñaa ngi koy dund uh-huh. mais man li ma ci gën a metti mooy xale yi nga xamante ni wax dëgg yàlla seen alali baay war nañ caa mën a dund wallaay te man mas naa gis koo xamante ni dafa génn àddina yor na jabar yor ay doomam gis nga bi mu génnee àddina biñ ne xes biñ ko laata denc ba ñëw na ba wuti oto bâche oto. Mhm. bâche oto bi. bâche oto bi. ndax 4 bi ndax. jël caabi ji ne bu ko kenn laal. Hmm. parce que miraas mi. ñoom dañ ci am wàll c'est vrai. xam nga nit bu génnee àddina yaayam am na ci wàll. bu fekkee papa a ngi dund am na ci wàll. ay frère am ak ay sœur am. nañ ci wàll ci kaw bu fekkee côté jigéenal ak góoral ak yooyu. dégg naa ñu koy wax. détails yi ñooñu ñu koy def ñoo ñoo ñooñu ci gën a mën a. kon miraas frère daf ci am wàll. frère des fois def ci am wàll. il paraît bu fekkente ne waa ji amul doom ju góor ji jigéen la am. Ah. il faut ñu indi ko ko góoral. li moo tax na jigéen ñi yóbbu affaire bi si yoon parce que sa alal bàyyi sa frère bàyyi da si bëgg am <laughs> moo tax. dafa ci am pourcentage. yoon yi ngay gis yëpp jigéen ñee fay yóbbul si ëpp de <laughs> parce que dañuy bañ ko coob seen alal parce que damay dégg ñu ne ménage jigéen du ko jeexal. jigéen du ko du ko jeexal mooy lan mirage comme par exemple bu dee doom bu góor ku góor ki moom moom lépp waaw si gàttal si ni ma koy déggee waaw mais dañ ne bu dee jigéen du jeexal alal ji benn benn jour bu dee doom bu jigéen la du jeexal alal papa ji yëpp déedéet wala alal yaay ji yëpp waaw parce que daf cee am dañu il faut ñu wuti ku ko góoral waaw léegi nag loolu moo waral tax mirage sa yoon la jëm parce que bu dee yoon moom cinquante cinquante la sa frère bi nga xamante ni liggéey na ba am kat katam teg sa dëgg dëgg ah, liggéey ba am këram teg wallaay mu ne xes dee mhm. yow lijjanti woon néew bi amuloo naqar jooytu woo defoo dara mhm. lu dul wut baax baas oto ba. foo ko teg. da koo ñëwoon. nangu portable ba teg. ah nangu caabi oto ya teg. mel ni yow ki nga xamante ni moom moo dem ci nga war a suqaliku. wallaay ku la wax ne la ñaata fan la lay rawee. Mm. ba nga war a mën a suqaliku ci alalam. Mm-hmm. yooyu nañ koy seetaat ay détails la yoo xamante ni dinañ ci indi ñu ñuy leeral waaye daal nay rafet mm-hmm. leneen loo xamante ni itam ci tënk bëgg naa dinañ ko waxtaane ci biir semaine bi léeg-léeg miraas tax nga weer sa baay waaw si naka léeg miraas tax nga weer sa ndey dëgg la parce que dañ naan cépp mhm. ñu ne dañuy miraas. ñu ne ah, diw de yaakaar na ne mooy taaw waaye xanaa xamul ne noppam ak borom. Mhm. ci lan. waaw judduwul woon ci say mhm. koo xas. bu dee sa côté papa sa papa bu dee sa côté yaay sa yaay. ñeena bokk ndey baay. waaw nga taxaw carrément altana taxaw ne diw judduwul woon ci sëy du bokk ci dangay bañ mu am si alal ji. lan la lay wàññi. Ah! alalu eh, àdduna bi c'est que moo jël nit di def nit mu naawtal kon xam nga ne génne sa doom baay tegee ko ne seppi tegee ne léegi nag léegi nag alal ji tax yow yematoo ci euh, gàllankoor sa frère <laughs> wala sa sœur léegi da ngay da da ngay da ngay sulli sa démmi ndey waaw ngay tilimal sa baay wallaay ba mu jaral la nga taxaw ñàcc mm-hmm. moom itam moon la ne la boo dee jaay ñàkk teggin mm-hmm. maa la gën a ñàkk teggin foofu dinaa ko yóbbu ci yoon yoon xamul doom ju ñu jur ci nii ak ju ñu jurul ci nii alal ji yéen a ko bokk si vous êtes quatre personnes quatre millions ku nekk un million nga dem sa yoon. jeex na loolu la yoon xam. Mhm. léegi loolu lu ko jar. déedéet alal ji. ah entre ah, am na alal yoo xamante ni day dugg ci yow ba pare tilimal la ba nga tilim. day tilimal sax ba pare dalay jàpp xam nga aralu mirance xaalisu jirim wala bàyyi boo ko lekkee boo koy lekkee nii muy neex. Mm. ngay ganaar di yàpp. Mm. mu leer na yooyu yëpp dañ ko xoree tere la ko. dëgg la nga koy def lu mu yàgg yàgg di nga ko fa jot avant nga dugg biir bàmmeel. c'est sûr. bul sonn. da nga koy fajoo ba la ngay dugg biir bàmmeel di nga dem ba ne man su ma yëgoon mhm. du ko def parce que yow kii liggéey alalam ji mhm. yàlla def mu bàyyi fi ak njabootam wallaahi njaboot gi war ko jël dafa benn xale bu mos a expliqué ne ma ñun bi ñu juddoo ba ba ba ni ñu ba ni sam papa gaañoo la suñu àdduna changé jarbaat xam nga ne damaa fàtte woon ne am nañu élément waa élément baa ngi fi te gars itam xam naa ñàkkul bëgg nañoo dugg de ah mais 20 jot na kon nañ teg élément bi nañ dugal élément bi waaw euh, dellu si waat àndaat yi tàggoo mm-hmm. su ko defee bu subaak jàmm ak salaam insha allahu taala ñu ñëw ak sunu gan fas yéene yaatal yaatal goo xamante ni rek mm-hmm. wallu miraas ak la ci aajowoo nit ñi delloo si waat seen xel mm-hmm. ndax ñi koy jooy ci biir kër yi bari nañu lool lool ba fekk ji sax jur wi nga xamante ni moo fi bàyyi woon alal ja te ñu waroon caa mën am dund ci faju ci waaye tam faj ci seeni i kon ñu dem xool élément bi te ñëw boo tàmmaloo sa bopp liggéey tàmmaloo sa bopp daan doole bëgg a wékk ci lépp teg bët sa papa wala ngay teg bët sa yaay naan man jarul may sonn parce que bu dee ma doon yooyu mooy indi coow yu bëree bëri. man gis naa ay cas yoo xam te ne ci ay ménage la da ñoo xam te ay góor yàlla ñu gëm seen bopp seen waajur gaañu ñu ni ménage da ñoom may nañ seen i wàll xam nga ñoom dañoo gëm seen bopp ñoom ñëw ñu fay coow mais foo fekk mirage ñu fay coow ñi nga xamante ni gëmuñ seen bopp la nu ngu ñoo liggéey di xaar bi dee wala dara ñu jaay kër gi te buñ ko buñ ko jaayee coow cooli cooli cooli xaaj ñu ko tegoo dañ koy cakaayee ñoo sax ba mu jeex takk du leen mujj fenn mais bruit boobu mais nit ñi gëm seen bopp man teg naa ci sama bët ñu gëm seen bopp ñoo xamante ni seen papa gaañu na ñu ñoom seen wàll maye nañ ko xaaruñ ay mirage defu tiwuñ dara li ñuy yor lañ gëm lañ yaakaar moom la ñuy liggéeyee yaakaaruñ seen alalu papa may nañ ko seen i rak xam nga kon kooku foofu kon coow du fa am mais coow yi ngay gis yëpp loolu la rek yaay yi ñooy ne di influence seen doom wala ay ñoom ay doom yi gëmuñ seen bopp nu ngu ñoo liggéey ñay nekk ci yenn condition ñu bëgg a brouiller famille bi tax ñuy naan ay dañuy jaay kër gi dañuy def nii dañuy def laa mais ko ci def tamit fa ngay mujj du xam du baax c'est que nit ki moom boo gëmee sa bopp gëm ni parce que waajur yu ne bu ñuy faatu dina am ñu ëpp dañ joxe ay kàddu sama kër kat bëgguma ñu jaaxu wala buñ koy jaay dañ bàyyi ba sama njaboot yëpp màgg ko defee ku am dem dëkki fenn bu demee ba ñëpp am fu ñu dëkk bu leen neexee ngeen jaay seen kër mais ñu ci bari dañuy ne ci kër yi ñu yaxaatuñu liggéeyuñ dara xëy nelaw ba mu di yeewu teg ataay xaar añ bi bu pare kii yàkkamte nag paa bi gaañu waaye ñoom avant paa bee gaañu sax dañuy kër gi ñaata la war a jar. Ah, c'est sérieux wala am ñoom kër gi ñaata la war a jar. gi su paa bi gaañoo dinañ ci am temps su ko defee mën naa am temps kii am temps kii maanaam mais menace naan paa bi xam te deewagul yooyu nag ñu jeunes yi ñoo war a gëm seen bopp te xam ni fii lu fi waaye am yaa xam may sa bopp sa papa xëy du xëy yor loolu daal liggéey ba am ko kon boo liggéey mu nga am lu këpp fuuf nañ bàyyi nañ gëm seen bopp te bàyyi sukkandiku ci ay ay ay paa bu gaañoo ay paa bi am na lii ak méras nii naa nañ gëm seen te dem liggéey fii ku liggéey am suñu borom ku liggéey mu teg la loxo nga am dara xëy xëy sotti nag quoi mais ku liggéey suñu borom dina teg loxo mais foog ñu gëm seen bopp foog ñu gëm seen bopp tuuti xam nga bàyyi seen xel yi ñuy fooyee ay dem tribunal fii ay mbokk yu bokk lépp mujj tribunal kii xiiroo ŋaayoo fii kii jaar ni kii jaar ni ñuy liggéeyanteeg di rayante yooyu mën na ñàkk ngir lan alalu àdduna loo xam te ne boo ko amee xamoo ba xam di nga ko jariñoo day jeex léegi kër boo ko jaayoon 300 millions boo ko pàcc pàccee day xaasu mi du taxaw ba pare boo ko defee loo war def day tàkk say loxo du taxaw amul njariñ nañ gëm suñu bopp te liggéey jaamu yàlla xam ne fi mu toll nii yëpp dañ ko fiy baax voilà ñu jaajëfal bu baax a baax waa régie ci élément boobu lii yëpp dañ ko fi ba gëm mhm. suñu bopp dem liggéey mhm. man souvent dama koy faral di wax way jur wi fa mu jaar ba dëngal naan mhm. su ma fa jaaree danaa ŋaccaatu ndax nag wayjur yi euh, wayjuram bàyyilu ko woon dara kon yow bu la sa wayjur bàyyilu dara itam gëmal ne boo takkee sa ndig rek da am la mu am loolu nag lu jar a bàyyi xel la jeunes yëpp war ci mën a bàyyi xel waaye ñaawoo gi daal nañ ko moytandiku nañu moytandiku xasante bi diw du seddu ci alal ji am na ñoo xamante ni seen miraas danañ ko téye ba vingt ans ah, ba 30 ans koy dégg xam naa ne ci whatsapp maa ko dund allah di am lu baree baree bari mhm. ci ban numéro la nga fàttali ko gars yi 77 614 51 15 si wàllu sa alalu baay wala sa alalu yaay mhm. nit tëdd si ñu nga fay xaar nga bàyyi ñu fa vocal mhm. xam nga yimpaañ tam euh, élément bi nañ ci del si waat parce que xale bi dafa nekk xale ba pare wax wax ju am solo dafa am nee xale yi nañu dem liggéey toog di mm. xaar di calculer kër paa bi mm. yow paa takk tuxi cigarette ak euh, grand place di xaar paa bi daayef ñu séddoo seen alal ñu séddoo alal ji léegi nag yow xamoo ndax paa bi yaa ko njëkk a daayefam déet déedéet léegi nag comme yow xamoo loolu dëgër fitu doomu aadama weesul foog na ne mag rek kay dem mhm. te mag day dem gune day dem lii day judd léegi dee léeg-léeg nga gis ci ñoom ku turian koo xam ne day njett paa bi ba mu bind kër gi signé may ko ko waaw léegi bu bindee signé may ko ko wala mu may ko la ëpp ca kër ga waaw day am loolu yëpp ci biir miraas la non non miraas mu jur ñol ñol miraas moom coow la loo xamante ni li ay ko dox naa coow li tàmbali na Sénégal mm. coow li tàmbali na 2h coow laa tàmbali. moom la ñuy tàmbali dañ koy wéyale ba janvier mbaa xam nga loolu <laughs> ma bàyyi la nga tàggoo. waaw di jaajëfal ñëpp rek. Eh, di profité comme suba le 24 décembre di souhaiter joyeux anniversaire sama yimpaañu bopp Kumba Seck Zé Maria yaay Ndey Mariam Dramé sama sang boobu nekk Japon mën a yónnee daal loolu tabaarkàlla Dramé Kanji. Mhm. nee naa ko max ba NBA rek sama basketteuse bu mag boobu yàlla na si jàmm yàgg. amiin ñëpp di jox rendez-vous ñëpp suba si whatsapp maa ko dund bi aussi 77 614 51 15 di leen wax nañ maa ngi leen di xaar bépp loo fay dund daal si wàllu ménage ñu ngi lay xaar foofu jërë ngeen jëf fi amaanillah ba suba incha allah jërëjëf sama jarbaat ñu jaajëfal ko bu baax a baax di wax na rek euh, numéro bi ñuy envoyé ojo yi foofu la mhm. te bañ ko envoyé ci ñun euh, ndax euh, lu ci bari du ñu ko mën a transféré di remercier bu baax a baax ni ma leen ko waxee Fa boutique nekk fa ca Apex 2 villa 377 ngeen am ko ci 77 841 39 96 77 moo jaar fii awee ko Daba Jaw mi nga xamante ni mooy daro li li li bi wax waxu bees bi daroo waay daroo daroo waa ba mu mm. way suñu xarit ba waaw jee asu sere waaw jee asu sere la ko way way wuréy woowu le sarema bo waaw nuyul ma sama xarit bi <laughs> ndeesu xamante ngeen ndees sare waaw ah. xaw ma ko waaye ñi mu laa xam bokk ak ñoom waaw naa la booleeg moom jeen naa def link bi <laughs> ñoo bokk suñu daaray kooc nuyul ma sama seex bi ruba sëy sama seexu ñu laay boobu le madame jagana loolu doyul maa ngi lay ziar bu a baax yi ñu jox ñu benn clip ñu seetaan ko le temps que ñu dalal suñu gan ni ma leen ko waxee ki nga xamante ni mooy solution à tous les problèmes euh, Baye Ndiaye borom solution moom la ñuy àndal incha allah mu doon gan gu bees sax euh, ñu jëli ko bitim réew indi ko. loolu laay loolu foofu laay yem léegi léegi lay doon. Eh, jërëjëf waa régie euh, ci euh, clip bu am solo boobu ñu dellu si waat rek euh, ci ñaareelu pàcc bi ni ñu leen koy defalee sa su ne ci seen émission ñu ñëw nag wax dëgg yàlla fas yéene waxtaanee li nga xamante ne rek moo jëm ci wàllu ñaan borom solution lañ leen indil macha allah fa tabarakallahu sëñ Baye ñu ngi leen nuyu di la ziar. bismillah bismillah mm. salaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum asalaam subhaanaka laa ilma lanaa illaa maa allamtanaa innaka anta al-aliimu al-hakiim mm-hmm. euh, soxna Mbayam ñu ngi leen di nuyu mm-hmm. di nuyu mbokk yi ñuy seetaan fu nekk ci àdduna bi ku nekk xam na ne ñu ngi toog si télé bu mag bii nii boo demee fu nekk si àddina bi yaa ngi koy seetaan barki démoo Njaay laa jugee ko Malaisie ak Philippines maa ngi fa doom seetaan di leen encouragé leen xamal ne émission bi moom bokk na si émission yi gën a mag si Afrique waxuma Sénégal rek comme ñu ngi lay ñaanal yàlla yàlla yokk seeni taxawaay di xaar ngir ñëw seeni laaj yi nga wax comme ni nga waxee rek yéen a ngi jàkkaarloo tey seen mbokk seen xarit Cheikh Baye Ndiaye borom solution du guide spirituel ambassadeur of peace and love du président action humanitaire pour le développement et la culture du Sénégal. du Sénégal mm. muy lu am solo bàyyi toog jafe ko lool bi ñu programmé émission beeg léegi mu yàgg lool bi nga jógee Malaisie ak léegi mu def deux jours deux à trois jours. Mm. Euh, ñu mujj programme émission bi euh, euh, Malaisie lu fa nekkoon. waaw xam nga euh, soxna Mbayam. Mhm. Mbayam euh, Malaisie. Mhm. yaakaar na tukkikat yi ku du tukki doo xam fu dëkk neexee. dëgg la te ku nekkee dégg na xam si wàllu Malaisie si wàllu Asie si wàllu xam-xam. Mhm. te ñun li ñu yàlla dénk ci xam-xam du doy. te xam-xam heure bu nekk rek da ngay jug pour dem di wuti di yokk sa xam-xam mhm. parce da ngaa jug taxaw ne ba borom solution mhm. nit ñi buñ ko déggee tur bi dana rëy si ñoom mhm. waaye ñun ñi koy wootee ñun xam nañ ne rëyut si ñun loolu moo waral nag heure bu nekk rek duñ am jot dañuy jug rek waaw di dem yaatal suñu xam-xam waaw jóge Philippines ñëw mm. Mm. Euh, yooyu yëpp xeetu xam-xam la mm. mais mais li ma jaaxal mooy Malaisie dafa mel ni miin nga ko miin goo xamante ni bi nga fa demee cinq jours nga fa def xaw ma une semaine matul matul 10 jours matul 10 yooyu yooyu def rek parce que dafa am xam-xam boo xamante ni maa ngi ko fa doon jàng. ak Malaisie ni mu méttee te sori. dafa sori na lool sax sori na parce que da nga jël avion Dubaï rek Malaisie 7 heures de temps et demi la. waaw Dubaï Dakar. 12 heures de heures de temps. presque 2 jours da ko def si yoon bi. nga dem ah, juste pour une semaine waaw pour une semaine. pour préparer nag émission bi nag ñëw indi fi ay mbir yoo xamante ni ñu waxtaanee ko. ay bagages ak ay bagages yu bëri sax. ñu fas yéene waxtaanee jël leen téléphone bi nag ndax nee naa leen du ma ko rappelé gars yi hmm. ndax macha allah léeg-léeg ñi dañ lay woo ne la ci fin wu émission bi laa tombé wala ñu ko ci YouTube euh, ndax danañ leen fa dugalal si bépp émission boo xamante ni dafay jaar mais euh, euh, Cheikh Baye borom solution rek doyul hmm. bëgg nañu xam moom mooy kan fan la bàyyi waaw Cheikh Baye Ndiaye xam nga moom li may faral di wax rek. Mhm. nit moom buñ na ko waxal sa bopp yomb na yombut. Mhm. waaye Cheikh Baye Ndiaye li gën a am solo mooy doomu Sénégal la. Mhm. juddoo Sénégal waaye juddoo fuñ naan Kaolack ci biir Medina Baye. di kuñ xam di buur si côté baayam. di di sëriñ timi si côté waajuram bu jigéen. tey ku dem Medina Baye da nga xam suñ maam. dañ koy tuddee Omar Diop Miskin mhm. bokk na si sëriñ yi njëkk dam dem Amérique mhm. si année mille neuf cent soixante-quinze yi di mhm. yaatal faydatu tijaani fële si Amérique seen maam nga xamante ni si yar la ak jàngale ak dimbale néew ju doole yi si loolu la def dundam bi yëpp comme ñun tey li faral di wax rek ñun weexal lañ ñu ngéntee weexal lañ taxawalee suñu mbir weexal lañ doon fayalee suñu jàng weexal lañ ñu génnee yóbbu ñu jàng si biti ba ñëw comme ñun li ñuy def ni dañ koo xam dañ koo maîtriser. kon bu ngeen demee bañ den ba ngeen ba ngeen toog ñu di leen weexal kon wàcc ngeen. waaw bu ñu demee ba ñuy weexal wàcc nañ. mooy tubaab dem na Paris. waaw mooy dem na Paris. ngeen am ko ci 77 972 00 00 77 972 00 00. wala ngeen am ko ci euh, euh, euh, mu ngi nekk fi nga xamante ni mooy ginnaaw SDE bu Yoff. boo fa taxawee rek woote ci numéro yi incha allahu taala euh, danañ la ko euh, indiqué nga daal di dem ci kër ga muy waajal itam Mauritanie dinaa ci ñëw incha allah numéro baa ngi noonu ci suuf waaye ci ñëw ci numéro Mauritanie bi mhm. mais euh, cheikh cheikh bi kenn du ñëw mu tibb sunguf rek jox la nanga ma may metti mu tibb jox la mhm. dafay seet Mm. lan lan ngay seete. waaw ak ñaata façon seet ñoo am. lu lu waaw seet yi bala ñuy ñëw si point seet rek. mu mm. continuer si dugg boobu rek. waaw tey Cheikh Baye Ndiaye moom ñaari gono buur la. Mm. sëtu buur la di sëtu sëriñ. Sénégal moom fu ñu neex rek ñu dëkk fa bu ñu neexee dëkku Saalum bu ñu neexee dëkku Jolof bu ñu neexee dëkku fii Dakar si Lébu Ndiaye bu ñu neexee dem Bawal. loolu laa bëggoon a euh, yokkaat rek. ci bi dafa bari tiitara bari tiitara moom sax xuloo dafa metti sama kër ci moom dañuy dem ba waa sama waa kër ne ma. qu'est-ce qui se passe boobaa jikko buur bi mooy feeñ. wax naa la buur la man gënoo maa xam nga tey yooyu yëpp sax gaa amul solo. xam nga léegi nañ ko texee parce que gaa yi dama bëgg ñu xam la. nit ñi waaw <laughs> moom lii yëpp pour ñu xam ma. loolu lu ma si bëggoon terminer mooy yàlla dafay wax si alxuraan inna akramakum indallahi atqaakum mm. tey yooyu yëpp am na solo buur am na solo sëñ am na solo waaye nit ñi fu ñuy gënantee mooy ci gëm yàlla ak dëggu ak xam la ñuy def foofu la nit di gëm ak taxawu askan wi aussi ak taxawu askan bi kon loolu moom moo ëpp solo moo la tax a jóg moo tax ñu bi ni nga ko waxee tey doomu aadama si gàttal rek tey. Mhm, mhm. boo buggee jël nit. Mhm. defaral ay mbiram. munoo kaa defal dara mu jëriñ ko te xamoo biddiwam. biddiwam waaw nit da ngaa war xam biddiwam. d'accord parce que am na ñoo xamante ni seen biddiw ndox la. am na ñoo xamante ni seen biddiw suuf la. am na ñoo xamante ni seen biddiw ngelaw la. ngelaw waaw xam nga yooyu yëpp dafa laaj sëriñ bi ngay dem mi lay xoolal say mbir bala muy dugg say mbir. mu xam yii nii yëpp. Mm-hmm. bu ko xamul du la mën a defal dara nit yàgg na di dem si sëriñ mu naan yàgg naa di dem di dem di dem te gisuma dara mm-hmm. amaana mën naa am sa bidéo la xamut mm-hmm. parce que ku nekk xam ne ne ndox ak safara mënuñoo ànd dëgg la waaye ku nekk xam ne ne ngelaw ak suuf danañ ànd mm. waaye ku ne xam ne na ndox a ndox danañ ànd parce que yooyu yëpp ay yiw la yooyu mm. yëpp nit daf koo war a xam mm. seet nag am na ay point waaw am na seet yoo xamante ni am na seeti euh, peetaaw man du may def peetaaw doo def peetaaw waaye xam naa ko am naa secret yu wóor waaw seet yi may gën di daf mooy seetu ndox la ndox am na boo xamante nii dama koo jàng si asi laa ko jàngee dafa am lay wax rek boo ko sànnee rek mm-hmm. nit ki mun naa taxaw léegi nga xam léppam ci moom waaw xam nga comme seet yi dafa bëri seet nag moom dama si def yu yéeme yéeme yéeme yoo xamante nii loolu laa gis ci bëgg a xam dara rek boo ñëwee si man incha allah nga jokkoo man da di di xam te kenn du la si wax. te yaa ngi ci def boo xamante ni bu alxuraan la yaa ngi def li saxaar di fanaanoo mais terewul itam xam-xam bi nga xamante ni yaa ngi koy jëlee ci biti. Mm. ci asiatique yi euh, itam boobu itam seet bu wér lay génne. waaw boo gisee loolu lu ko waral mooy léeg-léeg da nga xool nit ci ndox doo ko gis. waaw léeg-léeg nga xool nit si turam xool ko si turu yaayam doo ko gis. waaw mooy na seet nag foog nga xam si yu bëri. mais léeg-léeg am façon seet yoo xamante ni yow da seetal nit ki mu génn dar gémmiñam parce que musul gis ñu seetalee ko nii. waaw ak façon bi fan la jógee xam-xam la yooyu xam-xam la parce que <laughs> nit bari mbóot nekk rek boo ko boo ko xamul rek da mm. koy jaare ci beneen côté xam nga mm-hmm. seet yoon la mi ngi mel ni autoroute dem benn dëkk am na ay yoon yu bëri dëkk boobu mën nga faa jaaree yoon yu bëri am na yoon yoo xam dafay yéex pour nga yegg ci dëkk boobu d'accord mm-hmm. xam naa waa Mauritanie ñu ngi naan joxeel sunu numéro ngeen mën leen ngeen ko am nag ci 00 222 27 89 41 79 ma baamtuwaat ko 27 89 41 79 yaakaar naa su ma juumul noonu la mooy numéro Mauritanie bi déjà numéro bi mi ngi nekk en marche te d'ici semaine prochaine dana dem Mauritanie ndax toogaay yomb ko waaye le 25 incha allah mhm. le 25 janvier wala le 25 janvier le 25 janvier d'ici un mois d'accord képp mu ñu woote rek danañ jël moom rendez-vous rendez-vous boobu danañ gis incha allah 00 222 27 89 ci suufu Sénégal bi ngeen am ko ci 77 972 00 wala 70 620 30 37 numéro yi ba tey mi ngi noonu ci suuf écran bi waaye euh, wàllu kaaraange itam gis naa ne yaa ngi ciy def lu doy waar jàng nga alxuraan macha allah xam nga xam-xam yi nga xamante ni mooy xam-xamu mm. waaye toujours est-il que rek yow pays asiatiques sunguf ya nga fay jëlee ak bagages yeeg cuuraay yeeg yooyu dafa doy waar. Mm. ci xeetu kaaraange yoo xamante ni tengs la. Mm. man tengs laa ko tuddee. Mm. retour à l'envoyeur. waaw léegi moo tax euh, gis nga xam-xam dafa am solo. Mm-hmm. buy nit ñi di gaaw di yàkkamti di wut ay nit. waaw nga gaaw dem wuti xam-xam. ba pare doog a ñëw waxal nit ñi. d'accord ñun taraw tooguñ ne dañ se juddu juddu si ay alxuraan wala yoo xam-xam dafa yaatu. dafa yaatu nga yàlla dafa may kii lii. Mm-hmm. may kee lee. Mm-hmm. yow léeg-léeg da nga fi yàlla may dam xooli keneen. ngir nga mën a dajale yeneen xam loolu naa la si dellu rek loolu Égypte la njëkkee mhm. ku nekk xam na ne Égypte si wàllu xam-xam mhm. si wàllu mbir yi yéeme yéeme ku mhm. nekk jàng na euh, xisa yonentu yàlla Suleymaan waaw yonentu yàlla xam nga yooyu noonu yëpp maanaam foofu xam-xam dafa yàgg. dëgg la nga jàngee foofu tourné dem Asie. Mm. tey kaaraange maanaam nit buy dox ci àdduna. boo mm. amul kaaraange doo dem. dëgg la tey nit dana toog di wut alal. Mm. wut alal ba am ko. ñàkk kaaraange tax. mu génn léegi mari de taani def accident. wala mu am alal ba pare gis yàlla boole ka ay nattu nit yoo xamante ni du nit dara ñu yàq alalam. dëgg la xam nga yooyu yëpp ñàkk la. waaw comme da ngay gis benn jigéen barki dem rek am na benn jigéen boo xamante ni dañ ma ko doon wax. Mm-hmm. jigéen bi macha allah jàng na mu dem ba Canada jàng ñëw. ñëw mm. commencé dem liggéey fii si benn société ba jox ko oto mm. dafa génn rek barkaat démb lii la xew génn rek si otoom bi daanu damm paralysé oh. xam nga loolu ñàkk kaaraange la mm-hmm. gis nga kaaraange nit tey ak cat mooy mm. ñàkk kaaraange rek parce que mm. yooyu yëpp dafay dajaloo si wallaahi dëgg la parce que boo amul kaaraange ci sa mm. bopp gis nga tey mën ngaa am xaalis di wut xaalis ba am ko bu fekkee ne amoo kaaraange da nga delluwaat di wutiwaat kaaraange dëgg la comme kaaraange léegi la ko nit di taxaw wut ko ci boppam d'accord dafa am yoo xamante ni dama ko ciy def nit koo xamante ni pour nga am kaaraange bu dëgër waaw gis nga lii nii ma yor lii waaw lii nii nii nga gis ko mën naa ko laal waaw lii baax na ma kii la rek nga barkeel <laughs> rek gis nga lii dafa am mi nga am lu ma trois cent treize poussa. waaw as da dun jeexun la. Hmm, comme ay poussa la ma. waaw am na ay poussa si biir. waaw. Euh, am na lu mat cent onze ay yàpp yoo xamante ni yu wuutee la ay yàpp njanaaw la waaw waaw am yeneen yoo xamante ni dama ko see def ay sekara la waaw wàllu kaaraange la waaw lii dafa am ñoo xam ne dama koy defal ñi nga xamante ni dañoo nekk si xeex yu métti ak xëccoo yu métti wala ñu bëgg dara wala dañoo nekk ay nit soxoree leen wala ñu nekk si ay xat-xat yu jafe-jafe-jafe wala sànq sax li ngeen ñu waxal mooy wàllu miraas am ñoo xamante ni nit daf leen a noot jël seen alal tëdd si waaw lii nii ku ma ko defal moom sa lépp loo ñàkk moom dana delluwaat ci yow jërëjëf yal na la yàlla fay foo jublu yal na fa <laughs> yiw yàlla jublu mm-hmm. jërëjëf jërëjëf jërëjëf yal na la yàlla fay am naa ci benn alhamdulilah rabbil alamin sama naqar da ma ba ci wàllu kaaraange googu euh, bu ñu ñëwee ci kaaraange tam balaa may ñëw ci wàllu ubbeekook euh, wàllu wàllu wàllu yenn yi mm. am na ci yoo xamante ne xeetu def def la mm. euh, Cheikh Baye nga indi solution ci nit ku ñu def dara mm. bëtam xam ni li ñu ko defoon mi ngi nii boobu secret ban laati alxuraan la wala pousse yi la wala lan la loolu secret yëpp la loolu ma xam daal da ngay jàmbaaje waaw man lépp a ngi si man lépp lu ma laaj gis nga nit ñi boo leen bëggee dimbale waaw xam nga dafa am nit yoo xamante ni seen mbir yi xam nga tey man maa ngi jëflante ñoo xamante ni nekkuñ ay jullit dëgg la comme xam-xam dafa war a yaatu. waaw nit ki boo ko bëggee dimbalee dangay am xam-xam tey ni koo xam ne dañ koo daf ay daf-daf am na daf-daf yoo xamante ni nekkul da nga koy jël di ko jox mu sangu. pour mu mm-hmm. dañ dëgg la. loolu da koy jël dindi ko ci moom. nga génneel ko ko tegal ko waaw moom mu xam ne kat lii nii moom moo nekkoon ci moom. mu am benn soulagement bu nekk si moom mu xam ne am na lu dañ ci moom. bu génnee day oyof tooy bu moom daf koy xam. lu muy la mu gis ko mu gis ko mu xam ko. mu xam ko mooy loo xamante ne dañ ko daf njabaar wala luñ ko sànni ay daf daf wala luñ ko mm, sànni. Mm. wala yooyu. waaw moo xamit tamit koo xamante ni bët daf koo jàpp. waaw cat daf koo jàpp. Mm. parce que nag nañ daf ndànk. gis nga bët dafa garaaw. dëgg la al aynul xaq. Mm-hmm. loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. xam nga bët lu invisible la. waaye am na ñoo xam ne dañuy laajte naan bët nu muy jàppee nit. xam am ñoo xam loolu la ñuy laaj. bët bu aay am na bët bët bu aay dafa am. dëgg la bët bu aay boobu noonu dafa am lu transformé wu dugg ci moom. Mm. nekkul ni de mais ay raba seytaane ñoo dugg ci moom. di xool ci bëtam moom. Mm. moo tax bu la xoolee wala mu wax si yow loo xamante ne du noonu rek daf lay gaaw di daal d'accord kon nañ moytu si loolu te am kaaraange baax na am kaaraange baax na waaye itam bayre itam yor nga ci xeetu sungu fi doy waar hmm. euh, moo tax léeg-léeg borom soora soirée yooyee nga xamante ni fi mu ne ñu ngi waajal décembre gi hmm. ñoom ñëpp ñu ngi xëccoo sa kër kër ga ca ruq ba nag gi bokkeew la gi ñuy recevoir soxna Mbaye ah. euh, bayra lan la loolu waaw ah, man moom dama am na am na bayra boo xamante ni dama koy def benn lu ñu ma jox la secret bu bees boo xamante ni maa ngi si war a defar lu mat sept journalistes yoo xam dañ leen di dégg si àdduna ak sept musiciens yoo xamante ni dañ leen war a dégg si àdduna moom laa wax ñoom ngay recevoir foofu man kay ak sept reporters yoo xamante ni ñii man maa leen des maa leen war a defar si man lañ war a jugee ko te danañ leen xam waaw te dañ dana am li ma la wax ni dafay am man maa ci xam dara incha allahu taala loolu dafay am ak sept jours yoo xamante ni dañ siy bokk waaw xam-xam boobu loolu lañ ma tegal condition boobu bala ma koy jël di ko defal kenn mm. maanaam foog ma créer si ñoo xamante ni ñu ñuy xam lañ deux Ndeye Pétaw. waaw incha allah loolu moo. ci <laughs> wutal cinq. incha allah wutal naa la foofu. <laughs> loolu moom dafay am incha allah taala. condition bi balan koo defal nit il faut nga am sept euh, musiciens sept footballeurs. sept journalistes. il faut yooyu yëpp mu am ko loolu dam si daf bayra boo xamante ni bu yéeme la. waaw moo journaliste ak animateur ak ñuy wax si wàllu rajo ñu nekk si waxukaay. ñu ñuy dégg mbaa di nga leen defal kaaraange bayra bu amul kaaraange baaxut de. dana ko am xam nga nag bayra nag dafa am ay pàcc. waaw am ñoo xamante ni dañu am bayra nit ñi di leen tudd amuñ dara. boobu laay bañ nag man bay rab mos dara laa wax man bu may daf gis nga man na sama spécialité dëgg dëgg dëgg nag waaw wàllu xaalis la xaalis parce que nit booy dafal dara adduna bi damay mm. wax rek mm. euh, Seydina Ali karamallahu wajhu waaw euh, saxaaba yonentu bu tedd boobu noonu dafa waxoon si jamonoom ne ñàkk waaw problème yi am ci adduna bi nii yëpp ñàkk moo ko waral mm. tey ñàkk bu ma xamoon ne góor la buy dund wala nangam naa ko dam fekk ko ba fu mu nekk ma faagaagal ko ñàkk baaxul ñàkk baaxul ci société donc euh, muy xeetu def-def ak xeetu kaaraange ak bayra yoo xamante ni hmm. macha allah euh, am na ko teyit nag boo ko weddee bu la malaisien rombé wala philippien rek gers ñëpp dañuy gersu jëmlu ci ñoom kon am na luy nekk seen dëkk yoo xamante ni jël ko boole ko alxuraanu karim gi mu jàng boole ko di ci def yu yéeme yoo xamante ni euh, macha allah yu yéeme yooyu bokk na ci waxuma la li ngay ngëb de mais jaaro bi nëb gi xam nga kenn du ko mën ñun jigéen ñi fi nekk nii bii sama saak la jëm moom incha allahu taala amul benn problème <laughs> mais am na yoo xamante ni jaaro lañ koy def na yoo xamante ni jaaro nga di ko def ay jaaro hmm, jaaro ko ndax liñ ko yàqoon yow nga delloo siwaat ay jaaro yu yéeme jaaro yu pour lan la waaw man sama jaaro yu bokkut ak jaaro yu ñu fi déggoon toog wane ay jaaro naan ay lii per bi la yii man jaaro yu ma yore jaaro yoo xamante ni ay rawxaan moo la koy jox hmm. waaw xam nga jaaro bi rawxaan joxe bokkut ak buy nit di joxe jaaro bi ngay taxaw rek moom moom la jaaxal boobu noonu la am na jaaru fu nekk la lay dikkee nekku ku man maa la koy jox loolu nag moom condition bi dafa am ay nit ak âge boo xamante ne moom laa koy defal nit ak yenn critères si nit nekku na ñëpp laa koy defal hmm. ndax jaaru boobu jaaro mystique bu yéeme yéeme la hmm. mun na defar nit lu bari ci àddunaam si wàllu wërsëg wàllu bayra wàllu am am wàllu xaalis jaaru boobu affaire rawxaan la moom am na solo. Mm. bu baax a baax ma jeexalee ci wàllu këyit. Mm. Euh, bokk na ci li tax ngay dem bitim réew France Italie mm. euh, Espagne wala États-Unis euh, di fa defal nit ñi yenn yi pour wàllu këyit. lan mooy secret bi moom tamit. waaw xam nga kayit ba tey dafay dellusiwaat si ñàkk kaaraanga xam nga nit dana wut dara xam toog métti am visa dem. dem ba foofu noonu commencé di liggéey yàlla mu ngi lay dimbale waaye nga fexe këyit mënoo koo am mm. xam nga loolu tamit nit dafay tëju dëgg la tëju tëju dafay am si nit umu mm-hmm. baaxut mm-hmm. am na ñoo xamante ne ñu bëri seen mbir yi dafa dëgër mm-hmm. incha allah loolu képp ku am problème boobu te dama koy faral di ko def période bii nii lu tax ma bàyyi sama tukki bu ñëw waaw jamono bii nii ñun si luñ toll décembre waaw jamono bii nag am na si benn secret boo xamante ni dama koy def suñu bëgg këyit waaw képp ku ma ko defal balaa le premier janvier daañ la woo man naa xam yow département bi ngay déposé sa kayit ya waaw naa xam ma xam turu waaja mhm. xam fi nga xamante ne yow foog nga déposé ki bu ma ko xamee ma daf li may daf balaa la 5 janvier dañ la woo ne la kaay da nga am rendez-vous ñu jox sa kayit su amul rendez-vous mu woowaat ma ma ñëwaat ci yow mu ñëwaat ci yow mu ñëwaat ci man man fu wóor laa koy teg woo leen ko ci 77 972 00 00 77 972 00 00 wala 70 620 70 voilà 620 70 620 30 ñi nekk Mauritanie te nga xamante ni war na faa ñëw le 25 janvier incha allah mën nañu déjà woote ci 00 222 nga def 27 89 41 79 27 89 41 79 mooy numéro ki nga xamante ni euh, mooy Baye euh, Baye dégg naa am nga xaalis. <laughs> ah xaalis moom am na luñ ci am. mbaa li ngay laaj gars yi méttiwul am na non non non non non ñun lii dañ koy def dañoo sacrifié di mhm. mhm. foo xam buñ ko defee ni yëngatu rek dafay ñëw ñun dañuy toog ba guddi jox ñu ay mbuusu xaalis waaw léegi loolu laa bëggoon wax dañ maa lu bëri am na benn waa wax ne loo si yor ñaata la toll mais ne ko ko révéler léegi moo tax ngay ngay faj yooyu noonu yëpp xam am na léeg-léeg AVC am sax nga xool ko muy rab nga fekk ko mu dem dox dafay nekk rab ak jinne gis nga mm. rab dafa garaaw mm. dana nekk léeg-léegi ngelaw dugg nit waaw mais mel ni sànq lañ. waaw nit boo demee si ay scanner ak kenn du ko gis. Mm. dafay dugg si deret ni dugg si ditu nit. Mm. da nga dem si ay nit ñanaan la dañ koy mocc. Mm. mocc bi benn temps la. mu xaw a am féex. ñin dañ koy rocc si ni génnee ko. mu dem doxi soxla waaw ak ay preuve yu ay lu ñu rocc kay génnee ko mooy day jàkkaarloo. moom maa la xam limal ma jàngoro yi ngay faj. ku ko amee nee ma jàngoro sàngam ak sàngam ak sàngam ku ñëw ku ko amee di nga ko faj. léegi dafa am jàngoro boo xamante ni dama see doom jëflante ay nit. te mu dal ay kilifa yu bëri. waaw mooy jàngoro boo xam mi prostate. prostate waaw sonal nit ñu bëri. Mhm. waaw sonal kilifa yi nga xamante ni borom jabar yu bëri lañ. Mhm. ñooñu moom maa si yor benn garab boo xamante ni bu yéeme yéeme la. Mhm. képp ku fi ñëw jokkoo ci man incha allahu taala. da nga si am satisfaction bu boo xamante ni bu réeree loolu dana kawe sa njort. jërëjëf ak euh, jàngoro yoo xamante ni mooy wàllu. hémorroïde. hémorroïde mhm. lu muy keree si àdduna bëri na. temps bi jeex na tàkk de. waaw léegi li ñuy fay daal bëri na waaw yooyu noonu suñu for la. macha allah am allah taala danañ la jox détails yu gën a yaatu yaatu li ñuy def si àdduna macha allah. mu ngi noonu ci numéro yi am na itam whatsapp euh, ngeen mën ko woo ci 77 972 0000 yaa ngi noonu ci écran bi Cheikh ma bàyyi la nga tàggoog euh, mbokk yi bu baax tàggoo boo xamante ni dem dellu siwaat lay doon bu ko nangoo nag dinaa leen ko wax ne leen nangu na ko euh, ci sama sama samay loxo hmm. euh, kalaame la ak àdduna incha allah loolu dinañ ko xoolaat incha allah <laughs> tàggatoo bu ñu tàggatoo rek incha allah di leen wax jërëjëf mbokk yi nga xamante ni sonn nañ am na ñoo xamante ni am nañ fuñ jaar tey lu andi solution bi ku dégg solution xam nga solution moom mooy ku nekk si ay jafe-jafe bëgg solution dëgg la Cheikh Baye tax tey mu ñëw mhm. am na ñoo xamante ni si lu ñu nekk si ay problème bëri na mhm. boo amee problème yow boo ñëwee boo jàkkaarloo ñun incha allahu taala te jooni jooni lay doon wax loo xamante ni du dañ mhm. te danañ faj sa soxla am na solo te daañ la jox sirru xaalis mooy sirru yoo xamante ni ay sirru tëb di la mag ñi ñoo ko doon jëfandikoo ku nekk xam ne na magu Sénégal yi mos ñoo am ay milliards te ku leen fëggoon rek ñi xëcc joxe. faj loolu ay sur yoo xam ñu mhm. di joxe benn message di mhm. ñaan yàlla message la. Mhm. Sénégal bi yàlla daf fi jàmm. amiin daf na si yàlla daf dara bu baax. allahumma yàlla nañ nekk si naataange. problème yu xew si kër yi yàlla na ko yàlla saafara. allahumma amiin salaamaaleykum wa rahmatulahi taala. waaleykum salaam wa rahmatulahi wa barakatuhu cantal ngërëm ñeel ko moom mi ñeel képp koo xamante ni àndoon nga ak ñun ñu seetaan li des rek mooy joxante rendez-vous suba siwaat ci kàttanu borom bi asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuhu fi amanillah jàngeen